constitution moom moo ko garanti mm-hmm. te effectivement ni nga ko waxee noonu la amee depuis longtemps mënuñu fexe ba réunir parce que ñetti sièges yu ñuy choisir souvent pour réunir su ñëwee dañuy fekk ñu barricade yow doo mën a def point de presse soo déposer demande pour def marche wala pour kii ñu interdire ko soo bëggee def euh, point de presse c'est pas possible amatoo benn lieu boo refee contre man je pense que yooyu yëpp yooyu yëpp euh, c'est pas des choses yoo ne ça va favoriser Euh, climat apaisé te pourtant constitution bi moo wax ne les parti politiques la ça garanti aux partis politiques les droits de s'opposer parti politique ak coalition da ngeen am droit dañu am droit pour opposer wu à la politique du gouvernement dire li nga xam ne d'accord uñ ci mais loolu ñun loolu lañuy ñuy dund euh, oppression boobu moom la ñuy dund depuis euh, depuis très longtemps Yewwi les parti de l'opposition waaye muy loo xam ne réew mu mel ni Sénégal mérité wu ko parce que réew moo xam ne la dafa bokk ci première démocratie en Afrique dafa war a nekk réew moo xam ne quand même les acteurs politiques ak yi war nañ mun a def seen point de presse war nañ mun a def seen seen marche euh, sans sans sans difficulté. loolu nekk na loo xam ne vraiment rafetlu wuñu ko. moo tax waaw ñu jël titre bi. Ah, voilà yooyu qui est en zone de turbulence déjà avec l'affaire de Taxawu. donc zone de turbulence ngeen nekk parce que yéen seen biir am na. ñàkk dégg <coughs> am na mais loolu l'autre chose mooy aussi est-ce que Askan Wi ne marche pas vers sa belle mort non non non non parce que là vraiment Yewwi moom wax dëgg yàlla euh, alalu askan wi la comme ni mu ko waxee ni ñu ko waxee parce que boo xoolee dafa nekk structure boo xam ne euh, sénégalais yëpp sax ñoo ko war a jàppale lu tax parce que euh, mono mono monolithisme baaxul te du avancé loo réew te contre pouvoir bi nga xam ne moom la Yewwi war a jouer dafa am solo moo tax kenn warul seetaan euh, ñuy néewal doole Yewwi ba Yewwi di yàqu benn Sénégalais amu ci intérêt ne serait-ce que par principe que ça soit ak foo mën a féete parce que contre pouvoir ak ñi nga xam ne da ngay wax lii ñu wax la contraire dafa am solo déjà hmm. principe boobu rek tax na yaakaar ne benn sénégalais warul yàkkamti yeewi askan wi wala kii nasaxal yeewi askan wi ko nasaxalee dafay nekk fii vraiment benn parti unique nekk benn monolithisme te loolu ñëpp xam nañ ne du jëmal réew fenn pour mais nag heureusement que yeewi yeewi deewul parce que li ma ko wax bi ñu ko taxawalee en septembre ba di 2021 avant dernier vingt 2021 ba léegi yéen ñëpp gis ngeen performance yu ñu def dañu dem élection locale à quelques mois mais vraiment quatre-vingt-un commune collectivités locale ñu am ko en plus de quarante pour cent du suffrage boo gisee amuñu quatre villes yëpp ñu jël ko six conseils départementaux yi ñu jël ko am presque une quatre-vingtaine de collègues kooku mu ñëw législatif firnde waat malgré ko suñu liste nationale bi dañu def ay pexe génn éliminer ko mais gis ngeen dafa firndewaat ci élection législative yi ñu am benn assemblée boo xam ne. waaw loolu loolu moom constaté nañ doguma la mais constaté nañ ko c'est un fait loolu ñëpp xam nañ ko mais problème bi mooy. force problème bi mooy. waaw une force.